talaata benn fan ci weeru décembre atum 2020 di bëccëg euh, gi ñu jagleel ci at mi ndax euh, benn fan la ci weexu décembre la bëccëg gi àddina jagleel xeex jàngoro ji euh, di sidda ren ji nag ñu taamu ab ponk mu aju ci wàllum solidarité ci àdduna bi ak itam responsabilité partagée fii nag wala bokk ci àddina wërngal këpp ak tolluwaayam xam ngeen ne ki fi tegoon loxo ay jamono moom mooy mbas mi muy nag xeex boo xamante ne si itam dañu koy amal wala bëccëg ko xam ne dañ koy amal ci euh, jamono boo xam ne àddina mi ngi toll ci euh, xeex beneen jàngoro muy mbas mi wala coronavirus fi ci Sénégal nag ñu ne taux de prévalence bi bu ñu ko xaymaa euh, téeméer boo jël 0,5 pour cent la xam naa damay bàyyi professeur Massamba Gueye mu xay mu gam-gam leel ñu ko ci wolof parce que 0,5 pour cent moom matul benn maanaam benn bu nu xaaj ci digg bi la région yi nag bokkul ku nekk ak itam la nga ci am sa wàll ci nar wi Babacar Diouf lañ ci àndal ci ci leeral yi. wanal nañ ko ci Sénégal ci 2011 jàpp 2017 wane na ne taux de prévalence du sida ci Sénégal mu ngi ci 0,5 pour cent mu nekk feebar boo xam ne ni nag ci. dëkk yi nga xamante ni ñoo nekk ci bët saalumu réew mi fa nu ñu ëppee si Kolda ak Ziguinchor taux de prévalence bi mu ngi ci 1,5 pour cent topp ci Kaffrine ak 0,9 pour cent Tambacounda ci topp am 0,8 pour cent Kédougou moom 0,6 pour cent la am adduna bi. wërngal këpp premier décembre bu nekk dafay amal li nga xamante ni moo di journée de lutte contre le sida mu di bés boo xam ne ni dañuy koy jagleel di ko fàttali ko ñi nga xamante ni sida bi da leen laal wala sax mu am jeexital ci seen ak dund ci atum 2020 li nga xamante ni moo di coronavirus nag am na jeexital bu baax ci li nga xamante ni moo di xeex bu nuy xeex sida ci àdduna bi wante tamit ci beneen fànna bi coronavirus bi tax na ñu xam ne wërgu yaramu am na jeexital bu baax ci dundam jeexital boobu sax dinañ ko gis li nga xamante ni moo di digg yemale bi ñuy wax diggante góor ak jigéen jeexital boobu tamit dina feeñ ci li nga xamante ni moo di protection sociale ak lépp lu jëm ci koom doomu aadama bi loolu yépp tax na ci atum 2020 bi ñu tànn li nga xamante ni mooy jàppalante bi war dox diggante way doomu aadama yi njëriñ bi mu am ci seen wërgu yaram kilifteen ak jàppalante boobu sax nekk na loo xam ne ni lu am solo la ci xeex bi ñuy xeex lii di sida ak coronavirus ci àdduna war kër këpp askan bi nekk nañ ñoo xam ne nii waruñoo bàyyi benn yoon di jàppalante ci seeni biir mën a jàmm li nga xamante ni moo di xibaar yu wóor mën a tamit am li nga xam ne moom moo leen di may ñu mën a xeex lépp loo xam ni dafa war a jóg dal ci seen kaw mu mel ni sida bi ñuy wax wante jàppalante boobu du mën a am tànk ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk réew yi wala sax ñi nga xam ne ñooy borom doole yi ak ñëpp ñoo xam ne nii am na ñuy xalaat te mën koo yëkkati bu baax dugaluñ seen loxo ci xeex boobu mu di xeex boo xam ne nii rek ñëpp a ci war a dugal seen loxo. aywa laata ñuy jël suñu euh, euh, euh, ki ñuy dalal en visio ma fàttali Ousseynou Badio la yow yoo nekk chargé de programme à l' alliance nationale pardon des communautés pour la santé di ANCS prétexte bi nag xam ngeen ko mooy journée mondiale de lutte contre le sida Ousseynou. oui maaleykum salaam ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal ci info du matin. acteurs et acteurs bien. di leen sant di leen gërëm ci journée bi di gërëm également suñu suñu bopp acteurs yëpp yi nga xam ne taxaw si jàkkaarloo jërëjëf euh, Ousseynou dafa mel ne dégg-dégg bi dafa xaw a sori nag j'ai comme l'impression que dafa am tuuti écho mais bon maa ngi lay présenté ñi ci plateau bi Chérif Dia Mamadou Fall Moxtala Gaye ñu fas yéene seq ak waxtaan wi laata ñu ci dugg man bëggoon naa xam rek euh, euh, sida ak tolluwaay bi fan lañ ci toll ni ay jéego waaw maa ngi lay gërëm di nuyu sama mbokk nekk ci plateau bi Chérif moom sama rakk la xëy na gis lool mais depuis l'université c'est quelqu'un que j'ai beaucoup euh, admiré suma rakk la suma xarit la alors euh, xeex doomu jàngoro sida bi nag fi ñu ci toll yaakaar naa ne euh, Sénégal gis nañ ne ñu ngi ciy am ay ndam yu am solo su fekkee ne yàggul dara taux ñu amoon nekkoon ay taux yu xawoon na jóg en tout cas ci groupe yi nga xam ne ay groupe à problème mais également dans la population générale xëy na baax na ñu fàttali que ci tàmbali ba eggoon nañ ba un virgule quatre après egsi ba zéro virgule sept mais tey jii ñu ngi zéro virgule cinq euh, pour cent de personnes infectées au niveau de la population générale du Sénégal kon xam nga loolu ay jéego yu am solo mais ba tey terewul am nañ ay jafe parce que Sénégal ñu ngi am lu ñuy tuddee épidémie de type concentré maanaam ci population générale bi l' épidémie n' est pas développée mais y a des groupes dans lesquels en tout cas ay groupes yoo xam ne doomu jàngoro bi dafa xaw a fës bokk na ci boo jigéen ñi xam ne dañuy jaay seen bopp mais foofu également baax nañu wax ne su yàggul dara eggoon nañ ba euh, téeméer boo jël ñaar fukk am ci doomu jàngoro sida waaye tey jii fi ñu toll mooy téeméer boo jël euh, juróom-benn ñoo ci am doomu jàngoro sida kon xam nga loolu ay jéego yu am solo yoo xam ne euh, acteurs yi xëy na euh, réussir nañ ko mais mu nekk ñi nga xam ne également ñoo ñooy euh, ñi ñi jëfandikoo xeetu Sénébar yoo xam ne dañ koy jam ñu koy fóon ñooñu également taux bi muy toll tey ci téeméer boo jël fukk yi am nañ doomu jàngoro sida bokk na ci ñi nga xam ne dañuy tuddee ak détenu maanaam ñi ci ab féete ginnaaw ñooñu téeméer boo si jël ñaar ñi xëy na ñoo am doomu jàngoro sida euh, bokk na ci nag groupe bi ñu gën a problème mooy ñi nga xam ne dañoo ay góor la yu sëy ak seen am moroomu góor ñooñu euh, tey fu ñu toll mooy téeméer boo jël si ñoom euh, ñaar fukk dañuy am doomu jàngoro sida am na sax ay région yoo xam ne xëy na boo fa demee téeméer boo jël Euh, juróom fukki am na doomu jàngoro sida kon xam nga loolu euh, situation yu xaw a compliqué la xëy na mu tënk situation générale Sénégal mm. mais wax ne acteurs yi bàyyeekoo ñu ñu ngi si terrain bi di góorgóorlu bu baax Euh, Chérif mu ngi wax ci disparité yi. Mm-hmm. ginnaaw bi ñu ko nuyoo Ousseynou moom wax dëgg de ça vingt ans ngi nii gisuma ko ñu nekkoon na woon université Ousseynou ñu ngi lay nuyu yaa ngi wax sànq ci lan moo waral kon ci bu dee boroom ñaari tur yi ñu ne fa la mbir yi gën a wulee ñaay. vingt sept pour cent. bu pratique yi am ñoom xam nga bu fekkee ne jàpp nañu ne doomu jàngoro sida ci wàllu sëy lañ koy waxante aussi ci wàllu deret donc hmm. ñu boole ñaar di sëy foo xam ne c'est pas adapté pour sëy mais également loolu lu ci bëri ah, deret loolu explication la mais benn explication également dafay nekk faible accès au traitement et à l'information parce que xëy na ñoom ni ñuy dundee dañuy lëbbatu dina tax doo dem kër docteur dina tax doo faju bu waree faju dina tax bu fekk yaa ngi faju mën nga bañ a respecté sa traitement comme ay jafe-jafe yoo xam ne xëy na dafay ànd groupe boobu ay loolu li ko waral xëy na xam ne moom la ñu nekk di euh, dund euh, hostilité euh, environnementale xëy na moom mooy indi um yooyu conséquence mhm. maanaam di nëbbatu doo dem seet sa yaram di nëbbatu doo war faju yi Euh, voilà donc daal en hmm. su fekkee ne boobu explosion fa fa muy fa noonu loolu mën na ko expliquer entre autres. Hmm. mais est que seen est-ce sëñ Ousseynou. Hmm. est seen liggéey bi sooxewul ci euh, wàll woowu parce que quand même en 2014. Euh, téeméer boo jëloon. fukk ak juróom ñaar yi rek ñoo doon voilà ay góor yoo xam ne dañ doon sëy ñoo amoon doomu jàngoro bi. mu dem ba deux mille dix neuf mu tollu ci euh, téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom-ñaar. vingt loolu euh, seen liggéey sooxewul ci wàllu woowu. Euh, waaw mën mën nañ ko waxee noonu mais xam nga si intervention boo gis. Mhm. am na l'intervenant mais am na le bénéficiaire man gëm naa ne intervenant ñuy góorgóorlu lu ñu mën mais li jar a et wax naa ko sànq c'est l'hostilité environnementale mooy tax ba euh, maanaam ñoom jafe-jafe yi ñu am pour accéder au soins jafe-jafe yi ñu am pour euh, en tout cas suivre de façon correcte seen traitement moo tax manque de respect du traitement dafay produire de nouvelles infections xam nga bu fekkee ne boo demee ci trois quatre-vingt-dix yi dañ lay wax ne troisième quatre-vingt-dix bi euh, traitement pour tous li ci mooy bu fekkee nit ñi ñoo ngi traité wu long terme dañuy arrivé à ce qu'on appelle l'indétectabilité maanaam du ñu mën a wàllate ji doomu jàngoro sida mais loolu dafay fekk nga respecté traitement su fekkee respecté wu traitement bi mën nga continuer di wàlle doomu jàngoro sida te doomu jàngoro bi mën na développé ci yow ba nekk sida mm-hmm. kon li jafe-jafe bi moom mooy nekkul ne acteurs yi ñoo góorgóorluwul mais góorgóorlu yi acteurs yi def am na ay frein mm-hmm. et frein yooyu yaakaar naa bu suñu njëkk moom mooy mm-hmm. euh, hostilité environnementale bi ba tax ñu war a faju du ñu faju donc du ñu mën a yi kon forcément conséquences yi dañuy ñëw mm-hmm. très bien Modou. Euh, man li mu bëggoon rek laaj mooy ndax dégg nañu te taux de prévalence bi national euh, toll na ci 0,5 dafa wàññeeku wala dafa yokku ñaareel bi mooy mu amoon wàll bu am solo boo leen lool ñi nga xam te ni moom mooy maire enfant xaw ma transfusion euh, diggante yaay voilà transmission diggante yaay ak doom mm-hmm. tey jii foofu tam wàllu woowee fa fan lañ ci toll ndax xeex bi taroon na lool jëm ci kii nga xam te dafa wan lor am doomu jàngoro ji bañoon ko wàllu doomam tey ji fu ñu toll ci loolu ak taux de prévalence bi nga xam te ni 0,5 la fan la jógee ba yegg ci 0,5 dafa wàññeeku wala dafa yokk. loolu loolu moom yaakaar naa yëpp gis nañ ne dafa wàññeeku xam nga may wax sànq rappel historique. Euh, yàggul am ay dix ans je crois dans les années en euh, deux mille dix. ou bien deux mille sept ba deux mille sept ñu nekkoon à un virgule quatre. ñu ñëw ba ay euh, deux mille euh, quatorze ñu dem ci virgule sept tey jii ñu ñëw ci zéro virgule cinq xam nga kon loolu jéego yi euh, am na solo ñu ngi wàññeeku baax tuwaat fakkaal sant yàlla mm-hmm. et pour tontu nag question par rapport a la PTME mooy par rapport à transmission mère enfant xam nga doomu jàngoro sida dañu wax ne ñett buntu la am benn bi wàllu sëy la beneen bi ay dret yu ñu mën a wàllante mais beneen bi ndey wàllu ko doom bu ko ëmbee bu koy imbi wala bu koy nàmpal mais Sénégal ñu d'accordoon si ne suñu mënee tëj buntu buntu boobu xëy na war a mën a njëkk a tëj parce que c'est un travail très facile bu fekkee ne ndey yëpp ànd nañoo baay yëpp pour protéger xale yi jigéen mën na ëmb fekk mu ngi dund doomu jàngoro sida euh, porter grossesse bi pendant neuf mois mm-hmm. indi ko dans les meilleures conditions nàmpal doomam dans les meilleures conditions mm-hmm. doom ji màgg bañ am doomu jàngoro sida kon loolu moom c'est c'est c'est c'est clair mm-hmm. léegi nag am na ay jafe-jafe ay euh, gannaaw jéego yu am solo yu ci def parce que laaj bu mujj bokk na ci aussi est-ce que mbas mi parce que lan moom dafa nekk année bu particulière est-ce que Covid bi yombal na seen liggéey ci xeex bi jëm ci wàllu sida parce que ñaari virus la est-ce que amul ñoo xamante ni am na nañ jàngoroy sida ba pare yàlla def ñu am mbas mi waaw foofu yàlla ñu si dimbali mais bu ma jeexal euh, ci question bu PTME bi mm-hmm. tey ñaari jafe-jafe lañ ci am mooy jëniwu góor ñi mais également leur veto xam nga am na góor ñoo xam ne dañu nag wala am na doomu jàngoro sida hmm. mais bañ ci jógee dañ naan seen jabar du dem hôpital di jéem xool doomu jàngoro sida hmm. loolu dafay nekk jafe-jafe si jigéen ñi nga xam ne moo ëmb doomam war ko aar kon bëgg nañ ñëpp wax ak jëkkër yi ñu dimbali seen soxna yi ñu mën a suivre seen ay traitement hmm. également dépister wu à temps toppatoo seen ay doom ñu tëj au moins buntu très activité wu euh, j'allais dire euh, premier décembre rek bi nag dafay arrivé dans un part dans un contexte particulier muy contexte mbas mi boo xoolee ren xumu xumbe yi bëriwul li ko waral moom mooy les gens protéger les gens yaakaar naa moo expliquer le thème sur la solidarité mondiale responsabilité partagée. Hmm. parce que tey gis nañ mbas mi bàyyiwul kenn bàyyiwul benn dëkk ba tax na nit ku nekk war nga xool la moo ci sa responsabilité nga teg ci sa tànk. Hmm. Sénégal nag macha allah. yaakaar naa bas mi déclaré wu le CNLS. Mm-hmm. ak acteurs yëpp ñu xam euh, de de lui góorgóorlu nañ fexe ba protéger lu ñu ñi nga xam dañuy dund doomu a Sénégal. très bien Ousseynou. yoon mhm. oui. Mhm. rapidement rek parce qu'on est rattrapé par le temps oui. benn yoon on a on a connu des ruptures au contraire on a ay stratégies yu bees. Mhm. yoo xam ne ay ay ay ay dañoo gën a góorgóorlu. di fexe ba képp koo xam ne waroon na jël si garabam. éviter ko risque ñëw ci hôpital yi. Mm-hmm. Euh, même fekkee jàpp nañu hôpital yi amoon na sécurité mais xëy na ñëpp ñemewuñu woon éviter ko risque ñëw ci hôpital yi dafa yóbbul ay garabam këram ba tax na daal mm-hmm. ci wàllu jël garab moom mm-hmm. góorgóorlu nañ ci ba amul benn rupture traitement ci xam ne dina jàngoro sida très bien en trente secondes rek nga ñëw ci wàllum sensibilisation bi parce que Lamine Samba mu ngi xaar ci li ci yéene kaay ak jéego yuñ ci def c'est vrai que sida euh, bi mu soog a euh, nit ñi dañ daan nëbbatu stigmatisation bi metti na c'est vrai que am na bodd gi mais bu ñu demee ba gis à ñoo xam ne am nañu doomu jàngoro bi ñu accepter euh, témoigner à visage découvert comme ñi ko yeneen jàngoro yi defee quand même y a eu de pas yoo xam ne ils ont été faits même si am na leneen lu des rapidement en 30 secondes. waaw foofu dañ ci gërëm communauté yëpp moom d'abord l'État ensuite les communautés parce que loolu xam nga c'est un travail psychosocial. Mm-hmm. fexe ba nit ñi dem ba miis nangu doomu jàngoro bi xam ne du gàcce. Mm-hmm. nit ay feebar feebar yëpp nit lay dal dëgg donc ñu ko am vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant en premier Soukey Ndiaye du président du réseau national des associations des personnes vivant avec le VIH je crois que tey mu ngi def liggéey bu am solo taxawal jàngoro yi wala doomu jàngoro bi en tout cas jox ko un mën na wax nit ñi que ne doomu jàngoro sida du gàcce. parce que bu ñu ñetti bu ni ñu ko amee ku ne mën na koo am. ak foo mënti ak merci beaucoup Seynou Badio ñu lay sant bu baax di la gërëm ah. may wax ne yaay <laughs> chargé de programme à l' alliance nationale des communi communautés pour la santé ANCS jaajëf ci collaboration bi à très bientôt. merci monsieur. à très bientôt merci beaucoup. merci beaucoup et bon courage ci liggéey boobule léegi léegi. dañuy daw ci li ci yéen kaay la Lamine Samba.